gën faju tous derrière son excellence monsieur le président de la République dont je dédie ce prototype pour vaincre la pandémie. Mm. Félicitations ministre de la Santé, à tout le corps médical, aux forces de défense et de sécurité. Sans oublier le, PDG du groupe Futur Média pour son slogan Dan Corona, son engagement et son dévouement à la cause. waaw je l'ai président de la République. ki ngeen di gis ci image yi mooy Mouhamed Rassoul ay dara nekk xale bi am fukk ak juróom benni at maanaam 16 ans te defar robot anti Covid 19 ngir xeex wala sax daan corona biir Sénégal. démonstration. pour vous protéger et protéger les autres restez chez vous tout déplacement est interdit sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. aller travailler si le télétravail est impossible, faire des courses de première nécessité, faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables, aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. coronavirus nag dafa nekk feebar bu dugg Sénégal mu nekk feebar buy wàlle waaye nag am na ay matukaay yoo xam ne ni que ni boo ko jëlee dinga nga a mucc ci feebar bi le jël ndox mu laab bu ànd ak saabu di raxas suñu loxo yi mu set wecc saa yu mu génnee wala saa yu ñu laalee dara ñuy faral di jël ndox mu laab bu ànd ak saabu di raxas suñu loxo yi set wecc bu ñuy tisoolee wala muy sëqët nunu jël mouchoir AGT daf ko suñu bakken ak suñu gémmiñ bu nu paree ci loolu nag jël ko sànni ko ci mbalit mi bu nu amulee mouchoir nag bu nuy sëqat wala nuy ci sooli nu jël suñu loxo banque ko def ko nii boo bëggee leerlu ci feebar bi nag mun nga woote ci numéro vert bi 800 00 50 cinquante ak doomu xombol bi lee te nekk en classe de seconde S ci lycée Koumba Ndiak Guèye di ñu wax li ni mel naka la ko dikkee. donc idée bi maa ngi koy am ci temps confinement bi temps mhm. mois dernier mhm. donc damaa toog fii aw lu ma def sama xarit ñu ngi fubali mu ñu ngi may woo mais quelque fois rek laay dem mhm. donc ma toog fi man kase maag sama famille aw ma lu ma def léegi man it comme que yor naa fi quelques matériaux que euh, sama saak bi am na quelques matériaux ma ne pourquoi pas ma jëm si defar donc si laa commencé di di def di def dessin bi croquis bi. Mhm. dessiné ba am forme pyramidale bi. Mhm. def naa si ay forme circulaire ay ay carré rectangle genre donc pyramidale bi daal moo ma gën a convaincre. Mhm. donc si laa kii ba am ba normal bi léegi ma commencé assemblage bi. ça t'a pris combien de temps euh, schéma yi nga doon def yëpp xam naa leer na ma ni xotti nga ay këyit ba taay de. waaw donc schéma yi dessiné naa si minimum dix. Ah dama toogoon si dama kii benn guddi ma doon kii fii ñëpp tëdd nañ man man kase ma nekk fii di duy biteel yi boobu donc ma ma ma si laa commencé dessiner. Mhm. ba suba gi mënuma am dessin bu baax. boor 4 heures si laa am benn dessin bu baax si saa si ay 5 heures ma dem uti ay matério dama ne parce que li waruma perte temps. Mhm. ndax nu mu gën a gaaw pare gën a baax. Mhm. donc may uti matériaux te woon naa ne chaque jour dinaa dem deux fois aller retour marché. te ça fait euh, près un kilomètre donc matériel bu ma soxla rek damay dem pharmacie ñaan carton di wër si boutique yu nekk di ñaan carton parfois sax damay dem fu ma dem ñu ne ma jeex na damay découragé ñëwaat donc mais duma bàyyi rebot bi nag ci kaw ba ci suuf carton la ñu ko defaree sauf ru yi nga xam ni Mouhamed ay kubéeru bouteille yu mag la jëfandikoo dama ko def de toute sorte que day bouger dama see def ay ru nii ku béyee kër gi yëpp nag dindi naa ko pour pour jéem a defar kii bëggoon naa aussi mu déplacé wu par commande télécommande mais douze volt bi laa amul dem nañ fii wàccees mais mais amuñu ko kon sinon ak carte commande tamit buñ ko amoon tamit mën nañ ko def de toute sorte que da ngay taxaw di ko télécommandé gel bi tamit fii mënoon nga ko def mënoon naa ko def mu gën a sophistiqué comme nga nga kii ko automatique mais ba tey matériaux bi moo manqué ndax fii nii. da koy door a bës pour mu mën a génn. fii tamit dama fee def lampe pour utilisateur bi mën a mën a gis euh, guddi gi. dama xalaat ni après bu bu gel bi jeexoon wala batterie faible wala dara kii si na nga koy remplacer donc si laa dagg si ginnaaw def ko benn genre cadre moo nekk nii donc cadre bi laa dagg def ci def ci acier bu ko defee day mën a ubbeeku facilement comme ça donc doo koy tëjaat nii rek ngay def acier laa si def donc doo ko kiwee nii gel bu jeexee fii nga koy génnee facilement donc batterie bu ci faible rek changement ngay def ak euh, prise kii bi chargeur bu daggoon si biir wala dara da nga koy dindi facilement defaraat ko tëjaat mhm. sans aucun problème mhm. boobu kii bi ak loxo yi yëpp pyramide laa ko def mhm. donc peinture bi dañoo teg du carton wala. carton la kay. Ah dañ see teg benn couche boo xamante ni comme genre col col moom laa si teg pour pour peinture bi xaw a brillant mu xaw a dëgër tamit dama ko see teg bàyyi ko ba moom ma door see teg peinture peinture bi def naa si ñaari couche. à part français bi ak euh, wolof bi est-ce que am na possibilité am yeneen langue. oui am na mën mën na am anglais waxoon naa ko sa mbàppa pour def si ay anglais ay pulaar ay. séeréer genre pour pour ñu ñu ñu bëri mën see am accès. Mm. comme par exemple si restaurant yi si aéroport yi damay gis ñu si def ay affiche ay poster di si bind port de masque obligatoire donc au lieu nga koy def ay masque ay ay kii ay affiche mën nga ko def direct sa carte enregistré sa bopp par exemple nga ne port de masque obligatoire wala nga wax ko beneen langue bu ko defee léegi nag moom da koy génnee son boobu lay génne léegi nit ñi mën a am accès à distance. léegi bi euh, euh, ñaata war naa mat un mois de. yaakaar un mois donc donc bu keneen di di waxaat pour nga defaral ko euh, ñaata temps lay jël. bon bu ma amee matériel yëpp. Mm. dina mat une semaine une semaine du ko dépasser. maximum. waajuram bu góor ak bu jigéen am contentement ci seen doom. sant suñu borom d'abord waaw ci li am nii ndax on la xamasuñ ko xalaat bi ñu créé réew bi on a même pas xalaatuñu ne donc lii lépp na ci am. bi ma koy njëkkee gis keroog euh, bi mu démarré comme il a dit man j'étais pas au courant xaw ma fi la doon toog di def ay croquem et tout mais bi mu demee nag ba nekk à mi chemin ci la may door a informé dégg nag moi j'ai le courage ne naa ko jàppale yaayam jàpp ci donc vraiment et puis bon xam nga xale boo amee volonté ça c'est parce que sama doom la mais am engagement ci li quoi quelquefois sax man maa ko naa demal tëddi guddi na mais tout ça ci ah <laughs> ba finalement euh, mu mu mu taxawul ce robot là vraiment ñu on a été impressionné content. vraiment xale bu am jom la ba pare dafa am décision ci lu muy def bu xasee commencé benn affaire nii tant que parewul du du am jàmm même avant muy defaroo bi sax benn oto la njëkk a defar fii mu defaree oto bi carton la ko defaree dugal si ay fil defal ci télécommande léegi bu bësee télécommande bi léegi oto bi di daw léegi bi mu commencé robot bi ndax ci la ci la kii débranché yi mu defoon si oto bi. moom la ñu ko commencé dugal ko si robot bi par la suite nag am am ay yeneen bagage yu doon jëndi marché ma ko ñëw vraiment kontaan naa ci moom trop yaru na amul benn problème vraiment waaw loolu laa la moom ma see wax di ko ñaanal nag suñ boroom lafal ko cat waaw ñu waaw lafal ko cat waaw yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort daal kontaan ci rekk te bég ci te xam ne ku liggéeyul doo añ ku sonnut doo jariñu ku muñut doo muñ loo fa negut du la fa fekk te loolu lépp dal na ndeyam waaw léegi tey maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla lii mu def ca kaw ca kanam rek bu ci dellu ginnaaw mukk ndax ndeyam liggéey na ko baayam nangoon na ko ko baayam liggéey baayam sonal na ma man mi ko jur kon nag lii rek lii mënta ñàkk te lu mënta ñàkk day am yàlla nag ak fa muy dogale waaye jaamay fexe waaye yàllaay dogale dogal na lii nag ñun ñëpp nu bokk ci kontaan di famille bépp bokk ci kontaan ndax yomb ko ndax am na yar am na sutura am na teggin. lii bu ko créé di ko def ah yàlla mën na ko cee dimbale defal ko ci ndam defal ko ci sutura teral ci ay moom cee teral ay way waajuram yàlla na ko yàlla def. bi yëf yi siiwee ñi teewal Jamra ci gox bi eh, seet si Mouhamed Rassoul ngir gën koo encouragé. bu ñu ba ci dëkk mbas am. xale boo xamante ni toll ci niveau boo xamante ni âge am egg matagul sax 17 ans muy sensibiliser créer benn robot loolu li njëkk mooy dañ koy magnifier rafetlu ko et puis di ci di ci di ci wax ni euh, xale bi c'est à encourager wax dëgg yàlla war na nekk koo xamante ni maanaam exemplaire lay doon mais li ñu ciy wax mooy les autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii à Khombole comme ku mel ni le maire de la commune de Khombole di ko nuyu de passage Pape Mboup ñu ngi ko ci lancé appel di ko ci wax ni ko euh, ndam li du ndamul pappam du ndamul yaayam mais ndamul waa Khombole la kon Pape war na ñëw fekk gis li def ci benn euh, am benn taxawaay boo xam ne da ko ci taxaw message bi ñu ci mën a lancé mooy le président de la République di ko wax ni ko suñ sañoon mu recevoir ko bi njëkk mooy avant président di ko recevoir suñu sañoon le ministre de la santé daf koy woo recevoir ko ñu mën a xam ni xale bi am na luy nelaw ci moom te li koy yee mooy jàppale ko pousser ko mu dem à l'avant donc yow mën nañ xam tey jii lan mooy say attente par rapport ak euh, euh, euh, robot Covid 19 bi nga inventé lan nga ciy xaar. donc robot bi maa ngi xaar pour autorité yi ñu gën maa jàppale. ndax bëggoon naa mu mu kii nii euh, modèle bi style bi genre mu gën a développé daal mu gën a sophistiqué par exemple donc maa ngi kii autorité autorité pour ñu gën maa jàppale bu ko defee yeneen projet yi sax ma mën koo réaliser waale ndax bëgg naa defar premier drone marine Sénégal donc mu idée bi mu ngi en tête dessin bi nag commencé guma ko mais bu dee robot bi ma li ma si xaar mooy maanaam euh, ñu ñu gën maa jàppale bu ma ko mënee amélioré ma def. yàlla bu defoon nga am bac ban école ngay viser pour euh, mën fa jàng comme ça sa rêve yëpp nga mën ko réaliser. waaw man ñu ma ñu ma ñu ma koy wax bëri na comme bu buñ ma da nga doo amee bac ngay dem fee polytechnique de Thiès. Hmm. donc bi keroog ba ma ko yóbbu école sax suñ proviseur bi da damaa bëggoon a kii si si si si année bii nii ne ma da ngay dem mais yeneen prof yi dañ ne ko mu bàyyi mu toog fi ba am bac <laughs> ndax fi suñu élève la ko quoi mën nañ kaa utiliser. léegi naa itam da ngay bind. waaw da ngay da ngay da ngay da ngay inventé gars ay robot ay oto mais dégg naa tam littéraire nga da ngaa mën a bind. waaw. <laughs> léegi bind bi foo ci toll. bind bi instant yi euh, maag sama ñaari xarit ñoo ñoo ko ñoo doon bind man pare naa kenn ki pare na keneen ki mu ngi ay te 30 mm. la war a bind. donc commencé naa ko def si machine bi donc imprimé kese moo si des. Mm. bind bi livre ñu ngi koy tuddee obscurantisme. pourquoi tey wax parce que Sénégal dañoo xool dañoo gis ni. Euh, problème famille famille dafay bëri grande famille boo dugg rek day am ay problème mm. donc si lañ inspiré wu pour mën a tuddee livre bi obscurantisme c'est-à-dire lu obscur lu lëndëm problème yi nag dañ koy def lu nga xamante ni day day tragique fin bi donc pour pour pour ñu koy liir mën a bàyyi xel lii doo koy def fee ngee mujjee lii doo comme ñi ñii créer histoire ci famille genre fi ñuy mujjee du baax naam amoon na yenn jafe-jafe ci matériaux ngir defar robot anti Covid 19 bile moom ak xaritam bi ñuy woowee bay Assane Seck Mouhamed Rassoul ne du xaddi benn yoon te mbébétam mooy mu nekk ki njëkk ki nar defar drone made in Sénégal.